xam bu gàtt nangu naa kilifa diine dugg ci politique mais nag ak ndam cay duggee maanaam bu ji dugg na jiital ne moom kilifa la ba pare dafa jiite diine. ñu sañ daal man ñu ñu bàyyi politique li li seen maam bàyyi woon li seen maam bàyyi ñu jàpp si. dem si xasida jàngal ndaw ñi li ñu war a jàng waaw mais mais ay politique politique daal nañ nañ ko bàyyi ñu ko yelloo daal ñu ko yelloo na leen ko bàyyee. waaw ah, gis-gis gi ma see am mooy war nañ see dugg. ndax bu si bu bu ñi nga xam ne du ay kilifa dañuy nekk si réew mi di dox di dox di dox ba am jafe-jafe wëlbati ko ne na si kilifa yi wax pour ñu dal kon ñu lool leen ñu dugg si ba jafe-jafe war see bane am moo gën. bon kilifa diine yi dugg ci politique loolu moom c'est normal parce que ay citoyen lañ comme citoyen tout le monde kon war nañ di wax seen xalaat ci réew mi. li ñuy bañ nag mooy ki nga xam ne da ngaa ne askan wi la dugg ba si biir pousse askan wi fa ñëw taxaw ngir sa intérêt bopp te lam lay jurali ëllëg mooy. état def la lu buux la loo xam ne war a ko woon a lekk nga lekk mu xëy suba épingle la di la jaarale fu mu la war a jaarale di la di la bëgg fu foo war foo war sa jaar fu ne mu jaar la fa ngir jekk gi la jekk waaye boo jógee ngir jóg xam ne kat taalibe yi moom moomoo leen Sëñ Tuubaa leen moom askan wi tam moomoo leen suñu boroma leen fi wàcce ñu def la ngay kilifa li nga si war a def mooy défendre leen ngir loolu boo ko mënta def nag maanu si moom mooy li gën cest à xam nga politique ni ko gars jàppee ak ni mu demee woon dëgg-dëgg du benn politique mooy nga fexe poli def politique boo xam nii da war a seet nu jëmale réew mi kanam mais gars yi nag léegi politique bi ñuy def mooy di wutub xaalis bon naa siiw ñu jox ma dara bu nee nii ma transféré dem fee fële gën a xumb bu ma xasee siiw ñu yóbbu dem fee dem fee xam nga loolu moom vraiment du lu rafet. politique. du yàq dara ci diine parce que diine moom lu ko mën a yàq amul lu ca yàqoo kay mais lu ko mën a yàq amul waaw. façon bi may bañ a daal mooy kilifa goo xam ne nii jógoo ngir askan wi. wala nga wàcc sa dignité wàcc sa deret sëñ tubaa fële wàcc taalibe yi sëñ tubaa yi fële teg leen fële jóg ngir sa intérêt yi bopp boobu daal moo baaxut maanaam daal lépp même ku dul kilifa diine lépp lu ci man kuy dugg ci politique rek na nga jiital li nga doon ba pare boo jiitalee li nga doon ba pare bàyyi xel li topp ci sa ginnaaw ak ku mën doon rek boo ci duggee mën nga ci dugg te doo ci am benn jafe-jafe mais boo ci duggee te xool sa jëmu bopp rek rek ak ku mën doon toujours toujours mën nga cee yeewoo jafe rafetul nag parce que réew mi réew mu ndaw la te ñun ñëpp ñoo bokk réew mi kenn ku ne luy luy defar rek war a wax mais waroo wax luy luy yàq